violence ci ay waxin c'est des gens qui sont là à gueuler qui sont là di ratatati buñ takkoon Ousmane Sonko di ko dóor ci kaso bi xoolal duñ yëngu duñ yëngu parce que ñi mawuñ sax feeñu ñi mawuñ sax feeñu ñi mawuñ def benn acte guerrier taxaw yow yaa ngi gar sa bakkan lan moo la dugaloon ci kaso bi xeex grand sa papa dugalul ci kaso bi xeexaloo sa papa yow xeexaloo sa yaay ay millions nga ci def kan moo la ko dimbalee ci ñoom kenn tous rien nada dafa xam nga wax dafa wax mooy indi wax sax gis nga fi may wax nii xoolal dama lay won dara euh, société américain sax dugg nañu sot nañ ci xeex bi gis nga lii mi mu lii ay micro la mégaphone yow xam nga luy mégaphone voilà mégaphone comme booy wax voilà lii ngay jël maanaam boo demee ci événement yi di wax Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur gis nga lii les vingt une vingtaine laa ci jënd xoola une vingtaine mi ngi ci biir oto gis nga une vingtaine dañ koy yóbbante nit ñi Sénégal lii du xaalisu kenn suñu weccit la yu ndaw yi ñun voilà du parti politique bu ko jox du benn nit rek boo xam ne dañ ko ko laaj macha te xaaruñ ci dara parce que on pense liggéey bi dañu ne mm. c'est le don de soi pour la patrie maanaam kenn ku nekk ci ñun dafay def te réewam tax Euh, Moula dafa am foo xam ne dafa ma dama fa bëgg a taxaw tuuti dama bëgg a gaa yi xam ne ñun comme niñ ko waxee par exemple lii nga xam ne moom mooy combat patriotique bii ñuy jàpp ci Sénégal ñu bëgg ñu mm. bëgg ñoo focus loo ci deux mille vingt quatre yow ba nga duggee tey ci page yi ñaata partage nga fekk ma def fa ci affaire Ousmane ak dama jaw mi <laughs> voilà yow yaa ma woo tey di ngay dugg ci a nga ne ci ban page laa war a dugg nga ne page yi xaw ma ban mooy ban mola li ñuy partagé ci affaire Ousmane Sonko boo hmm. dajalee cinquante patriotes cinquante laa la hmm. genn wàll gi donc ñun li ñu gëm ci Ousmane Sonko ak di xeex ci combat Sénégal bi ñun xam nañ ko ba pare waaye defuñu ko pour man maa fi ne wala mana mana mana parce que on n'est pas dans le on n'est pas dans ça li ñu fi indi mooy encore une fois Macky Sall dégg nga ko yow yaa ko déggal sa bopp dégg ngeen ko Mambay ñaa doomu imam ba yow yaa ko déggal sa bopp Marème fay Sall yaayu saagakat yi man dama waaru ci sénégalais yi bu ñu génnee ñu ne wala Marème Faye Sall la ñuy def modèle yéen est-ce que xam ngeen la danger que Marème fay Sall incarne au Sénégal est-ce que xam ngeen saagakatu Sénégal yi yëpp kan moo leen di financé est-ce que xam ngeen ne ñaaw ñaawteefu Sénégal yi yëpp xam ngeen kan moo leen di financé xam ngeen leen xam ngeen kan mooy financé les délinquants les plus grands insulteurs de senegal de quoi est composé votre gouvernement aujourd'hui acca nañu dañu dem ci ministri yi Amadou Ba Mame Mbaye Niang to xanaa da ko bandi wax non seulement ne da ko bandu mais combien de voleurs de milliards Macky Sall la jël dugal ko ci gouvernement am bi pour ñu jàkkaarloo ak yéen xeex ak yéen pour sauver seen ginnaaw pour sauver seulement leur derrière Macky Sall amul kenn ku mu faale ci yéen Macky Sall ku dee ci yéen faalew la ma nga fële ci réew uh, arab ya ta uh, uh, Taïwan fan la fan la ma nga fële ci ci ci G20 wala Indonesia Sall mi ngi g fi ñuy wax ak yéen ni yéen a ngi dee ak xiif réewu yi fa ñuy dem daje yéen seen jaam bi fa lay dem topp ci yéen ginnaaw yeneen président yi mel ni suq jox leen alalu Sénégal gazu Sénégal pétrole senegal koom-koomu senegal ngeen ne pat toog seen kër yi xam nga kan moo ñu doon waxal loolu Pape Alé Niang Pape Alé Niang moo daan génnee ay documents yu wóor teg ko sur la table bu paree abal ka nga xam ne kii nga xam ne moom mooy inspecteur procureur moo laa ñëw yeggali dégg ngeen fi bàyyi bàyyi faal ba de yéen a fi toogoon de booba Mollah Morgan ñëw reconstruire at mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr bi du début à la fin ñi demantale tappale bii ak sos bii ak triandage bii nga xam ne moom la ñu Macky salla doon yóbbu waa jii toog bokk na ci comme ni ma leen wax nag ñun duñu mën a mën a je ne suis pas la pour ma dire qui je suis ndax xam naa kan laa. que c'est il faut que. te gars yi bàyyi foog ne. vas-y vas ñoom ñoom doomu aadama yi quoi wala patriotisme en mille mon mon grand on est dans le combat on s'est fracturé la main je vous je vous demande il était où Ousmane Sonko. voilà. Hmm. et on s'est fracturé la main il était où Ousmane Sonko question là la posé. il était boobu ñun ñun ñu ngi suuf suñu deret di damm suñu yàq c'est pas ces novices là voilà nouveaux arrivants ces nouveaux arrivistes arrivants dans dans le combat ñoo ñëw naan dañuy orienté nu ñu war a waxee ak fu ñu war a noppi ak fu ñu war a attaqué est-ce que comprendre nga ñun bokkuñu ci parti politique ah ah. Pastef mais kenn gënuñu ci loyal kenn gënuñu ci dëggu kenn dàquñu ci xeex yaa ngi dégg lu ma la bëgg expliquer et puis on a de leçons à prendre ci ñooñu amuñu benn leçon bu ñuy jël ci ñoom que ça soit clair amuñu lu ñuy làqutu amuñu lu ñuy nëbbatu il faut qu'on se loolu mooy dëgg on qu'on se respecte mais dafa mais man damay gis ay gars yoo xam ne ay fake yi nga xam ne ñi ngi nekk ay affaire xaw ma Pastef xaw ma je sais pas mais ay comme ay góor jigéen ñu xeex ñu wax loo génn ñu ñëw def dem publier seen page même ni kii nu muy nekkee man ànduma ci yow kii comme ay góor jigéen Et puis on, les réclame, on dit que c'est des euh, patriotes. Mais arrêtez de les appeler, ce pas des patriotes ces gens-là. Ce pas des patriotes. Ce n'est pas que nous, Ousmane Sonko. Non, non, non. C'est des gens de Pastef, mais ce n'est pas, des, pas des patriotes. C'est des gens qui sont là. Mais, euh, mais Taïdi, euh, kii jóge na fi Pape Alé Niang na kenn taxaw jël place am mais na kenn taxaw dëggal boppam jël place am mais duñ def loolu ay tàppale yoo xam ne derrière leur leur leur les réseaux sociaux toog liggéey di rey sa bopp di xeex ñu dem récupérer la teg fee non je ne suis pas d' accord gars yi di eh, aimé oui non c' est pas normal allez vous faire foutre vous n'êtes pas des patriotes vous foutez rien pour sa pays là vous êtes des ay ragal ngeen doo leen tuur seen deret doo leen seen yàq taxaw di bëgg a rey nit yi fii nii ba pare di naan da ngeen di orienté nit yi lu ñu war a wax ak lu ñu war ta wax. ñun bu nekk ci xeex bi démb ak bërki démb la te lu nekk luñ gëm la mais kenn mënuñu orienté di ñu wax ne lii ngay wax ak kii ngay topp man topp ma kenn je suis là pour le peuple sénégalais je réclame wu ma ci benn parti politique je suis pour le peuple sénégalais c'est la culture du hip hop moom moo ma xamal ni ma amoo droit bokk ci benn parti politique grand xaar ma expliquer la benn affaire nga comprendre grand ñun dañ doon xeex Abdou Diouf Abdou Diouf mais comme ay opposants mais kan lañ arrangé woon Abdoulaye Wade on critiquait pas Abdoulaye Wade on critiquait Abdou Diouf mais ça arrangé Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade ñëw falu ñu dem di xeex ak Abdoulaye Wade mais ça arrangé Macky Sall Macky ñëw bokk ak ñun mu mel ñu bokk combat bi mais waa Abdoulaye Wade bu ñuy wax day mel ni ñu ak Macky Sall ñoon ñoo nekk non nekkuñu parce que ñun dañuy xeex Abdoulaye Wade mu arrangé Macky Sall te pourtant jamono jooju ñun doon ñu xas Macky Sall donc buñ nee nit ne la yéen euh, Macky Sall rek ngeen xas mais doo leen xas Ousmane Sonko non xamul tax c'est parce que ñun bu ñuy xeex Abdoulaye Wade xasuñu woon Macky Sall ba Macky Sall falu ñu dem toy may ko temps di xeex Macky Sall day arrangé Ousmane Sonko léegi nag ñeneen ñi dañuy jéem a di leen manipuler di leen gëmloo ni mais yéen Mollah Morgun ci yéen la bokk déedéet Mollah Morgun est un opposant un éternel opposant yoo xam ne day xeex day xeex njaayum doole day xeex sàcc day xeex malversation financière day xeex dérive autoritaire day xeex day xeex day xeex day xeex donc moment bi on arrange Ousmane Sonko suñu position dafa arrange Ousmane Sonko suba bu Ousmane Sonko jógoon tey jii ñu may ko temps mu def naka sudul on sera la di ko xeex comme ni ñuy xeexee Macky Sall donc ñun sa yu ñu positionné woo comme en tant des en étant des opposants du pouvoir dañuy arranger les opposants donc cela ne veut pas dire que ñun dañu adhéré ci ci ay ñun ñun dañu am sañu benn parti xam nga sañ parti lu mu tudd hip hop c' est un mouvement de révolte et d' donc hip hop mouvement de révolte la et d' donc ñun ay éternel opposant lañu on sera là léegi nag ñun gis nañ benn waaye bu ñëw présenter ñu benn projet ñu kontaan ci projet bi ànd ak moom mais cela ne veut pas dire dañu bokk ci groupe am nii sa mouvement am mais dafa ñëw présenter ñu benn projet ñu d'accord ci projet bi ne ça c'est c'est intéressant c'est important mais ne veut pas diir que dañoo bokk ci man Abdou Karim Gueye bokkul Pastef nit dof Mortale Gueye bokkul Pastef Mola Morgan bokkul Pastef Gaston bokkul Pastef kilifa kër gi bokkul Pastef Thiat bokkul Pastef mais ñoom ñëpp boo leen gisee dañuy taxaw ci télé yi di xeex comme si ñu bokk donc munoo déglu benn waxu Mollah Morgun rek bu ko jël am gars yi di leen wàññi ñeneen ñu nekk côté bële di leen wàññi yéen moom da leen wax ak Mollah Morgun man damaa ñàkk fayda ba lay xool nga naan da ngay wax ak man yow est-ce dama ko permetre kii que ce soit bu ñëw taxaw oui parce que Californie nee na wala waaye waxal ak Mollah Morgun nga damay wax ak yow non kon keroog ngay gëj a wax ak man kon danaa la wan ne ñàkkuma fayda sama xeex bii bu ma ci bu ma ci nekkee di xeex di am sama samay méthode di ko xeexee c'est pas ma munoo ma wax nan laa ko war a xeexee ak fu ma koy xeexee xeex bu nekk dama nit munul xeex nga naan ko jëlal suuf jëlal suuf jëlal suuf non bul for xeer bul xor xeer kooku sawaay dafa xeexul nit buy xeex dëgg dëgg dëgg nekk ci digg xeex dóor yi di am nit munu ko wax ni booy xeex foral xeer bi bàyyil suuf si wala bu ko sëqal bu ko mëqal suuf wala bu ko kole non kii xeex moom xam na fu mu toll bu waree jël suuf day jël suuf bu waree for xeer day for xeer bu foree yat day dóor xeex la xeex dëgg xeex amul suuf jëlal suuf no xeex bi conventionnel la non conventionnel non xeex la donc tout tout bon pour libérer ton un un un prisonnier boo xam ne dafa am doole muy Pape Alé Niang ku am doole la koo xam ne la vraiment euh, lu mu doon peser fii ci kaw suñ société bi ki yee doomu aadama yi man pour man waxuma la ay saaga de dafa mérité sénégalais yëpp génn taxaw buntu rëbës di yuuxu ñuy ay jours yoo xam ne ay jours de résistance yoo xam ne sénégalais yi waroon Pape Alé Niang na loolu mais tey loo gis kan moo yëngu dëkk bi dañ ne grand lu tey ni Pape Alé Niang bu amoon France tey ku mel ni Pape Alé Niang bu amoon Amérique ku mel ni Pape Alé Niang un journaliste comme Pape Alé Niang parce alxuraan boo ko tëjoon tey dëkk yoo du calme mais xool leen Sénégal gars yi nga añ seen añ di dox seen chemin. nek internet bi connecté wu kenn parewu pour jaay bakkanam Pape Alé Niang doon jaay bakkanam pour jox leen ay information mais retour du patron lan la lan anam anamu grand anamu. bëri na xam nga Karim Gueye yónnee Karim Gueye xam nga nee naa la yéen seeti Karim Gueye. damay yónnee doomu aadama mu dem seeti ko. bërki démb sama boy bu mu demee jeudi bi passé xam lu ko Karim wax ne ko nel mola laa non bu defu ndànk nañ fi def six mois quoi bu defu ndànk non dinañ fi def six mois di wax bay man li koy jooy quoi di pour wan ne mais comment nan la ñuy mun a tooñee nii ci faj ñu jël ànd ma ci kaso bi nii mais sénégalais ma léegi dañ fi nar a seetaan ba ma def fi six mois nii quoi six mooy xaaju moom mooy xaaju at ci ku yor jabar ku yor ay doom Cheikh Omar Diagne mais lan la sénégalais def ba ban effet lañ def ban démarche lañ def zéro ñoom ñëpp a ngi toog seen kër yi ku nekk di commenté bu lu dañoo waroon tey ñoo ko yëgal seen bopp qu'est-ce se passe au Sénégal ñëpp tourné seen yeux ne ah wow naka de am na kuñ tëj fële kan la journaliste sénégalais yaa ngi génn gars yaa ngi tag nee nañ dañ koy par la force oh jàngam au moins Pape Alé toog ci kaso bi jaram bi di taw mu naan oh kon gars jaral naa leen lii non ndakate ñii nag delloon na delloon nañ naar bi xoromam li ma doon daj yëpp def nañ ko ñi ngi génn ci mbedd yi ñi ngi rayante ñi ngi jaayante ñi ngi ci buntu kaso yi Pape Alé Niang luñ ko def ak ñaaw dañ koy jël tëj kaso xam fan lañ ko yóbbu Sébikotane Sébikotane est-ce que n'importe qui moo fay dem ay doomam dañuy yeew ba pare benn jour lañ lay may dans la semaine pour ñu xool la grand benn jour lañ lay may dans la semaine pour ñu xool la xool leen njabootam yi ñuy teg di daw ay kilomètres Sébikotane kilomètre pour dem seeti euh, Abdou Karim bi di daw ay kilomètres man xam naa ci dara man chaque jeudi ma yónnee xaalis pour sama copain bi dem pour dem seeti ji ko dem seeti ji ko jënd ay pomme jënd ay banana jënd ay lépp damay rus sax dama naa ko mais vendredi bi moom mooy Cheikh Omar Diagne mais nan la def mais dafa sori mënuma ñëw di ko yó di ko yónni tous les jeudis tous les vendredis pour muy jël lu ñu am ma jox ko demal joxal ma lii Karim demal chaque jeudi mu dem mënul waat dakaar retourné waat tous les vendredis bu ko demaat foofu pour jox pour jox ab euh, kii di Cheikh Omar Diagne léegi nag dina Pape Alé Niang tam day am jouram xëy na mardi lañ koy xool wala jeudi kooku tam nga wër ko dem topp te ñoom ñëpp peuple bi buñ boole woon war ko war leen mën a libéré peuple bi toog ne tekk tegale seen tànk ah tegale seen tànk nga gis vindicte populaire buñ nekk di ko def ci réseau ci ci ci ci télé yi Pape ñaan Niang ci télé yi ñu ngi koy yàqate ku xoola cagga du taxawaalu Gabriel Kane yoo Khady Ndiaye daas yoo ñëpp taxaw ratatat ratatat ñii xoola gars yi di vindicte populaire di ko saax-saaxe ñàkk di ko manqué respect ñu tëj dañuy bàyyi ba nit tëj nit kaso ba pare ñu yónni ay chien errant ñu nekk ci télé yi ak ci ci ci lu mu tudd ci média yi di yàq waa ji du mun a sax moom mi ngi ci kaso bi de ñi koy yàq nan lay défendre bu peuple bi génnoon défendre ko kon gars yi dañuy daw gis nga tey buñ la tey te dugal la ci kaso bii am ñu wër di la yàqate waa day jaay dorog day jaay oto yu mu sàcc dafay nangam peuple bi génn Alé Niang di nekk ci réseaux sociaux di ko yàqte di wax di n'importe quoi c'est parce que tout simplement sénégalais ñoo wanewul détermination sénégalais ñoo taxawul wan ne Pape Alé Niang dinañ la delloo nañ delloo naar bi xoromam di ko wan ni Pape Alé Niang doo tey si sa kaso boobu nonu mais duñ ko seeti duñ ko du ñu duñu du ñu taxaw ci mbedd yi duñu sànni xeer duñ ko <laughs> c'est triste moo tax kuy def nee naa la grand bul xool ci sénégalais yi xoolal ci Sénégal man sama xeex Sénégal laay xool xooluma ci sénégalais xam nga senegal mooy ñan mooy suñu maam yi mooy ñi fi nekk tey ak ñi ñëw suba mais booy xool ci sénégalais yii yii benn cercle restreint la suba ñoom ñëpp mën dañuy faatu ñu mu yàgg-yàgg dañuy faatu donc xeexalal Sénégal bul xeexal sénégalais senegal c'est une institution sénégalais ay nit lañ donc xeexalal Sénégal booy xeexal sénégalais yi da ngay xool ci ñoom di di gedd da xool ci ñoom di mer da xool ci ñoom di doo bëggati dara man bëri na ay combattant yoo xam ne mënu ma wax seen tur ku ma ci dégganteel xam nga lan la may wax barki alxuraan xam nga lu tax ma noppi temps yi man daal dama j'ai vu que c'est pas ça pas la peine je veux pas me sacrifier bàyyi sama vie démb tey ñaari doomu aadama yoo xam ne xamoon nañ leen ñu si internet bii ñu ñu ràññi wallahi azim loolu la moo la xam nga lan moo tax ma seey non sa gars yi ñu ko quoi gars yi jaruñu ko quoi da ngay rey sa bopp fii xam nga doo mun a voyager doo mun a dox say soxla nga nekk sa vie nekk en danger tout ça ñoom ñuy dox seen soxla di lijjanti seen bopp fàtte la est-ce que jar na ko ma ko a ah, <laughs> bu dee ñoom ngay xeexal de jaru ko mais bu dee Sénégal Sénégal ngay xeexal moom jar na ko bu dee nation ngay xeexal jar na ko mais bu dee ay Sénégal ngay xeexal jaru ko ne ma instant yi damay maa ngi jaabante nu ma neex noppi naa maa ngi dem Sénégal di ñëw di lijjanti samay mbir man daal xool nangam tey tey tey tey kenn ñëw di ma ko tey woowaat tey loolu la ma doon wax booy voilà est-ce que li ni jar ko sa bakkan bi nga jël tay ko sa dund bi nga jël tay la say ni ngay dox reyanteeg euh, état ngay xeexal xeexalul nit de état lu tey ni état nga koy xeexal mais tey yow lu la ci dal wala luñ la ci rey wala nangam nga foog ni vie bi du continuer na ma xool ko ci ay ñoom euh, euh, ci la ma jox exemple na ma xool ko ci Assane Diouf xool ko tey xool ko ci ay Californie bii doon kii xool ko tey xool ko ci Abdou Karim Gueye bii nekk ci kaso bi xool ko tey xool xool ci Pape Alé Niang mii xool ko tey xool ci Cheikh Omar Diagne mii xool tey xool ko ci Ousmane Diagne mii xool ko tey xool ko ci Ndongo Diop mii xool ko tey xool ko ci Mamadou Seck mii xool ko tey xool ko ci du ma taxaw nii bàyyi ba mu pare ma ne ko booy mu ne waaw ma ne ko booy man nag xool ñi ngay wax yëpp c'est vrai ah metti na ma seen situation nu mu demee mais man Sénégal laa xeexal quoi te tant que Sénégal laa xeexal dinaa jóg taxaw. bëgg naa nga dolli ci leneen yow xoolal ci man nga xam ne boo xeexalee population la population sénégalaise n'est pas indigne yenn saay nag on est passif maanaam am nañu benn genre muñ boo xam ne bu yàggee hmm. comme ni ko suñu waa ji di waxee lu bari da ngay déglu ku mel ni président Ousmane Sonko mu jàng lu bari ci Sénégal mu ne leen hmm. xeex bu ñoree rek yomb mais malgré tout ça dañu yaakaar ne les premiers pas sont nécessaires parce que il faut ngeen déglu fi mu laa di waxee toujours damay fàttali doomu aadama yi buñ ñu bëggee ne les patriotes boo ne les patriotes ndeysaan keroog maa ngi euh, benn endroit bu tudd cent seize xam nga ko ndax yow xam nga New York ba ma yeggee seize ma am lu ma doon jënd mais je n'avais pas de liquide yoruma woon xaalis xobet xobet bi ma yorul xaalis xobet xobet ma ne euh, dama am lu may jënd ma xaaral ma dem ci banque bi ñëw benn patriote ne ma non ñaata lay jar ma ne ko ndax am nga zen quoi loo xam ne dañuy yónnee wante xaalis mu ne ma waaw ma mu ne ma cent ma ne ko cent mu jox ma cent dollars yi sans pour autant mu wóor ko sax ndax dinaa ko delloo xaalisam bu baax léegi bi ma ko nee patriote nga rek mu ne ma ay bu ma booleeg loolu man bokkuma ci Sonko nii la ma ko waaj waxee ah. ma ne ko sëñ bi mu ne ma waaw ma ne ko li nga def nii mooy liggéeyu patriote patriote c'est pas ku bokk bokk Pastef rek mooy patriote. patriote en fait mooy ku bëgg réewam. il faut ngeen comprendre un patriote un patriote. c'est par contre man man euh, gars yi dama leen di wax lii te dama koy waxaat dama koy tabbiwaat. Hmm. parce que yàlla moo def loolu. xëy na Mollah tamit bis bu ko yàlla mayee mu rencontrer la personne de Ousmane Sonko ba jox ko loxo jàbb ba ñu waxtaan face à face xëy na lu bari dina changé parce que dina xam la personne de Ousmane Sonko du ñu ko wër Ousmane Sonko man dama ko bëgg bëgg mewuma ko dama ko daan wax sax si ay tooñ ma ne bis bu ma yàlla mayoon doom bu góor sax ma tuddee ko parce que c'est quelqu'un que j'admire en fait. mais man bëgguma Ousmane Sonko de Ousmane Sonko <laughs> léegi léegi gis nga saa rapport bi moom moom bañkat la voilà waa ji bañkat la non léegi da ngeen koy comprendre nee na leen ngeen neexal ko waa ji nee na ngeen neexal ko waxtaan ak moom waaye bu leen jéem a ñaar loxo non projet non egg liu de projet laa bëgg man du ma fans Ousmane Sonko projet laa bëgg projet nag sama projet la dafa ñëw liir sama xel xam nga lañ ñuy wax naan tubaab naan il a marché sur sur ma langue da ngeen di nekk classe ñu laaj benn élève mu wax nga yëkkati woon loxo prof bi ne la yow nag nga ne non ça vaut pas la peine il marché sur ma langue ou il marché sur ma langue donc ça veut dire que maanaam li ma doon yàgg a xalaat di ko projeté dans ma vie loolu laa gis ci moom donc man ay jëmm doomu nekk ma fi di ko di de ko idolâtré naan ay yooyu non dama ko bëgg ci sama xol loolu man loolu dama ko gel ko jox affaire groupe yooyu nekkuma ci dafa ñëw teg ma benn projet ma projet bi taxaw ne damay défendre kii pour soobe sa projet la donc man nekkuma fi di topp di fan Moussa sa sa bi sa micro Mola sa micro waaw sa micro da nga tëj sa da nga tëj sa micro par accident sa mic xoolal non non xoolal si sa téléphone bi ci suuf da nga tëj sa da nga muté tu as muté quoi da nga bës mute par accident. nice hein. voilà voilà. da nga bës waaw da nga bësoon mute bi par accident. donc maanaam man grand man dama bëgg ñu yóbbu débat bi débat idéologique. mu bañ a doon ay débat yoo xam ni. Mm-hmm. débat wu fans. comprendre nga dama bëgg. Mm-hmm. moo wax naa la wax bu am solo mais bàyyi woo ci. yaa ngi dégg. Mm-hmm. non début ñaari sénégalais yu toog. non am na lu may déggaat muy ñëwaat ah. dafa am lan euh, retour. non man dégguma retour ñu ñu ngi lay déglu clairement dégguñu retour fii. non dafa am na am na léegi li ngay def kon. ok coupé nga duggaat juste. ah génne ma dugal ma la nga bindaat commentaire. yaa ngi dégg mi ngi def retour ba léegi. mi ngi léegi bàyyi ma coupé voilà léegi ñëwaatal léegi yow dangay ngay defaat euh, kii rek gars yi en attendant Mollah di ñëw boo leen gisee li ñu bind nii lii kañotu Pape Alé bi la dañu bëgg kañot bi yegg cinquante millions li gën a naqari Macky Sall mooy lii ma la ne gis ngeen lii fexe fexe leen lépp leen man fexe leen lépp loo xam ne moom ngeen man ngeen participer ci kañotu Pape Alé Niang bi Mollah gis la de bu ma la gisee rek bindal bindal kii bindal commentaire Mollah Mollah bindal commentaire bindal rek ma gis la voilà gars yi kañatu Pape Alé Niang bii dañu bëgg mu doon cinquante millions cinquante millions la ñu bëgg mu doon que bu leen fàtte ne gis nga ku mel ni Pape Alé Niang Pape Alé Niang fexe leen man ñu jàpp ci nañu jàpp ci combat bii waa gars yi Mola wala Mola Morgan wala mi ngi nii day day day Mola Morgan oh no no ok ana Mola Mola gisoon naa la de wala mi ngi nii voilà euh, maa ngi koy dugal. léegi leer na. ah nice mi ngi cool. amul ah, voilà bisimilah ñëwal dama ne nga man. je suis je suis très philosophique. ci ki nga xam ni yàgg na ma fréquenté. Mhm. ki ma yàggut a fréquenté. Mhm. bu déggee benn terme ma wax ko. ci maanaam explication primaire la koy mhm. comprendre man.